نافع سل والتصال في أباد على الذي لك يقوم من أباد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كنبياء اكتب صلاة لجميع الأنبياء warul bi dalil bi waral ak kii koy def bis bi mooy dafa dëppoo bis bi Serigne Touba ñëw woon fii ci Mbacke Kajoor seet si am mbokkam muy sëñ Mbacke Kajoor waaye mu yàlla def mu tombeek fi nga xamante ni fala la jàmbaaram ja ko njëkkoon a jox boppam ci bi sëñ Touba di woote wooteem bi fi liggéey bi tàmbalee waaye boobit bi mu wàccee ñu denc ko fi te boobu fekk ne sëriñ Touba mi ngi ci géej gi bi sëñ Touba jógee ci géej gi nag ñëw di seet si mbokkam sëñ Mbàkke Kajoor waaye ñëw di ñaanal si ab taalibeem boo xam ne daf ko gërëm te mu dëdd ko ginnaawam moo tax bi mu demee ci sëñ Mbàkke Kajoor ba pare dafa dem ci armée ñaaneel ñaanal taalibeem boobu nga xam ne daf ko dëddu ginnaawam waaye nag fekk ne sëriñ Touba noppi woon na ci moom ndax moo ko njëkk a jébbal boppam topp ko nam ko war a toppee ba làq ngërëmam te bu ñu wax sëñ Tuubaa nga xam ne moo doon yonente bi ci lépp kon dana ko doon ci matal kóllëre ndax sax na ci histoire ne yonente bi daana ñaanal ay saxaabaam yi nga xam ne dañ ko njëkk a dëdd kon ci tànk yooyu rek moom fi bokkoon ci li indi sëñ Tuubaa fii dox mbokk ci sëñ Mbàkke Kajoor waaye ñaanal kenn ci taalibeem yi ko dëddu ginnaawam waaye nag waa ngi yéen du nekkul ne dañoo dëkk Mbàkke Kajoor dëkkuñu fi Mbàkke Kajoor day dëkku bu am boroom muy dëkku sëñ Mbàkke Kajoor waaye ngeen seenu cër yàlla daa def mu joxe boppam ci Mbàkke Kajoor yàlla def bi mu wàcceet ñu denc ko ci Mbàkke Kajoor bokk na ci li tax ñu fiy ñëw ngir bañ di woote yeneen woote yoo xamante ni dëppoowut ak ñi moom dëkk bi seen bis ndax yàgg na noo bëgg defal ñaanal sëñ Adama Cheikh Adama Gueye waaye bi ñu bor xalif bi muy sëñ Modou ba xelam demee ci ñaanal ko te bëggut di fa woote beneen bis mu jàpp bis bi nga xamante ni ci la sëriñ Touba ñëwoon fii seeti mbokkam mi te doon ñaanal taalibeem boobu bi mu ko waxee sëriñ saaliw dem laaj ko ci ndigal sëñ Saliou rafetlu ko jox ko ci ndigal boobit sëñ Abdou Khoudous moo fi nekk xalif sëñ Mbacke Kajoor dafa yable ci moom ay ndaw ne leen de dama fa bëgg a ñaanal si xaadama te bëgguma faa woote beneen bis te gis naa ne bi sëriñ Touba jógee ci géej gi ñëw si di dox ak mbokk ci sëñ Mbacke Kajoor yegg na ci taalibam boobu ñaanal ko fa mu tëdd bis boobu bëgg naa ko di ko ñaanal saa bu delsee yàlla nag daa defal mu dajeeg seenu bis kon dama bëgg nga wax ma ci ba xam mën naa ne wala mënu ne sëñ Mbàkke Kajoor ne ko sëñ Abdou mi fi nekkoon booba ne ko loolu de rafet nañ ko te na ngeen mel ne lu ngeen ca def rek man ngeen ko defal kon loolu moo tax waaye du laneen ndax euh, sëñ Maguette mi mu fi bàyyi rek li mu sanc ci ay dëkk mën na ñeenti dëkk kon ñëw di wut fu ñu dëkk wala fu ñu fatu du moom moo ñu fendi donte Mbàkke Kajoor nag pàkk bu laab la kenn ku ne amoon na yéene muy sa dëkk ndax yoonu murid fa la départ maanaam mën naa xam ne mooy mahdul xadaara muridiyya civilisation mouridisme fii la du faneen amul kenn benn murit boo xamante ni doo mébét ne Mbàkke Kajoor dëkk fi fi la yoonu murit déparé fi la ko mbokki Serigne Touba yim nekkoon ak daare Mamour Anta Sali nekkoon waaye murit ya ko njëkk a jox boppam it fi lan déparé ba ñëw tëdd fi kon pàkk bu laab la bu barkeel la bu yàlla defee Seex Aadama tëdd fi ñu di ko fi ñaanale dañ ci am mbégte lool loolu donc moom moo waral bés bi kon bisu ñaan la ak fàttaliku jenn jàmbaar ci jàmbaar yi Serigne Touba yi mu Cheikh waaye jéem a jàngat dund gam doon dund boo gisee exposition bi looloo ko waral ngir ñu jéem cee tënku muy doon làmp boo xam ne daf ñuy niital jëme nañu ci siraatal mustaqim ba bu ñu fakkastalu bu ñu dëgg dégg loolu dong mooy sababu bés bi waaw Serigne Adama Gueye bu ñu ko waxee am murit la nit ku doon wër mbaax la maanaam dafa bokk foo xamante ni ci daara la nitu daara la ndax waajuram bu góor moo ko jàngal alquranul karim ñu jàngi alquran ba noppi dafa bokkoon ci aaday mag ña ak doomi daara yi laxas dem jàngi te booba umpul woon ne Maam Mor Anta Sali man noonu wax ne moo nekkoon jubluwaayu képp ku bëgg xam-xam ndax euh, wax na ne maam maram bi mu jàngee ci xaadi Amar Fall Pire ba pare wala ak ci sëñ euh, kokki sëñ kokki dane li fi nekkoon yóbbu na ko maam maram ëllëg ku bëgg barke danga dem ci njabootam loolu nag moo ragalaat ba ñëw ci njabootam Maam Mor Anta Sali mujje ko doon daara joo xamante ni moo nekkoon mën naa wax jubluwaay képp kuy sàkk xam-xam saaram bi mu jàngee alxuraan ca mbaabu ba pare kër baayam mu ñëw fii di jàng ci Maam Mor Anta ndax ci saahir moo magoon sëñ Tuubaa ma nga war na ko lu jege fukki at waaye bi muy jàng ci Maam Mor euh, xam mi ngi seetantal sëriñ tubaa xam ne ni kii kat ëllëg boromu cër la te yàlla bu nammee ci yow aw yiw day def ci yow nga am gis-gis yonent bi sallallahu alayhi bi muy jàng commerce nekk xale doon doon yónneegun ko dafa mas a dem saam di def commerce romb ci ak garab garab googu ku dul doon yónnentu doo fa toog bi mu fa toogee am na ku ñëw war a xatim nu nawfal nekkoon ab gisaanekat ca jamono yooyu wax nañ ne sax nijaay ci Xadija nga xam ne mooy soxna si yónnent bi bi mu ko gisee daal di wax ne xale bii de dana doon dara ëllëg ndax garab gi ku doon dara du fi nekk basiira boobu nag moom la Cheikh Adama amoon ba bi mu gisee sëñ bi mel melo xam ne mosu koo gis ci ndaw mu xam ne kii ëllëg mooy doon mujj jamono mu koy woowee sama sëriñ te boobu sëriñ bi gone la kon loolu moo ko andi woon Mbàkke Kajoor moom nag mu ngi juddoo ku ñuy wax sëñ Malick mooy waajuram moo ko jàngal alxuraan soxna Asta Dieng mooy waajur bu jigéen moom moo ko nampatal lépp ci diine kon diine nampoon na ko njëkk mu fi ñëw da doon mottali rek bi sëriñ bi wooteet moo xam ne yàlla defoon na moo xam ne kii du woote loo xamante ni duy njariñ ndax euh, Aboubacar euh, bi dafa doon ànd ak yonente bi xam ko ci lépp xam ne du nitu ordinaire bi sëriñ bi wootee rek bi yonente bi sallallahu alayhi wa wootee rek amul sikk sàkk xéewal boobu dafa mel ni moom lay euh, sixaar maam bi sëñ bi wootee amul sikki sàkk donte moo ko magoon ci at daf ko gaaw jox boppam sëriñ bi wan ko naka lañ koy toppee kon sëriñ Tuubaa mag mu mel ni moom jàmbaar ju mel ni moom ku am fulla ko mel ni moom kenn mënta jàngale lan mooy ak taalibe ku dul moom ak taalibe moo ko jàngaleel boppam boo demee ci eh, Minanu Baay Xaadim bu sëriñ Basiru da nga ko fa fekk ba Seex Aadama jébbaloon nu mu ko wax ne noonu nga may toppe mu wan ko ne lépp luy àdduna ak alal da nga ko dëddu lépp luy eh, mbuux danga ko dëdd lépp luy koom da nga ko dëdd ba bu mën a dox sa diggante sa borom boo ko defee danga nga yegg noonu tamit mu jaayante te jaayante dafa am lu mu laaj gor koy def ndax dafa laaj al faw bil ahd maanaam matale kóllëre matale kóllëre nag gor ku jaayante moom moo koy def mu saxte loolu sëriñ Basiru nee na ab diir bu gàtt rek yàlla defal ko mu làq ngërëmal Seexul Xadim ba yàlla defal Seexul Xadim loo xamante ni ci ay nitam cib yonente lañ ko xamoon ndax dañuy wax ne kéemtaan bu feeñee ci yonent dañ naan mojiza la bu feeñee ci nitu yàlla ñu ne karaama la kon loolu mooy tur yi wute dong ci tur kon kéemtaan yi mën na wax ya feeñoon ci Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla def ci taalibe Seexul Xadim bi loolu ne li ciy jànge du taalibe bi waaye dañuy jàng ki mu topp mooy kan wax na ne sëñ Abasiru ci mi nenu baal Xadim wax na ne Seex Aadama yàlla mayoon na ko daana toog lu toll fa Tuubaa da gis lu toll fa mbaabu di jàjji ay taalibeem boo demee lii ci minu baa xel da nga ko fekk yàlla defaloon na ko tawassul ci boromam ci yonente ci Seydina ci Seexul Xadim rek la ko daan def daana faj aajo lépp bu mu ko daan def ci Seexul Xadim boo fa demee da nga fa gis xisaam ak euh, sàmbalaw bi yàlla defal na ko muy faj ay raggi yaram bu man di doon ci raay rek bu la ko defee mu sedd boo demee ci mine baa xel da nga ko fekk moom nag loolu kooku moom mooy Cheikh Adama waaye ak dundam bariwul daanaka juróom fukki at tam ndax mi ngi ci biir dix-neuf dix-neuvième siècle ci la ñëw mooy mille huit cent mille huit cent quarante-sept mille huit cent quarante-quatre ci la gane gane àdduna ba mille mille neuf cent mille huit cent quatre-vingt-dix-sept kon nga xam ne lim dund bariwul waaye dund ko ànd ak njariñ dund goo xamante ni fexe na ba doon modèle bi sëriñ Touba bëggoon a tabax. kon ci tënk Cheikh Adama taalibeb Serigne Touba la buy jëmmal yarub Serigne Touba ci biir mbindeef yi kon ñu yam ci yéen fii leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu naafiu sali wal tusaali fi abad ala lazi laka yaqunu man abad اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسلي به تسليمي واذكر صديا أنتم سلام